aw nabu nag defe naa tey dinaa ci def lu mat 24 vidéo 24 waaw parce que benn du doy li ma bëgg wax ci mbir yi ci boppam moo bari parce que man nabu déglu naa ko physiquement et moralement pour ñi nga xam ne ñu ngi ci internet bi di ko saaga naan du jigéen ju baax du jigéen juy sëy <laughs> yéen ñu ñàkk xolu yërmaane ngeen ñu doy waar ngeen yéen ku leen tëral nit mën ngeen koo rey parce que nabu guddi yi ñu toll nii ku ko seetaan te yërëmuloo ko ma xam ne amoo xol sa sœur nga teg ko ci palaasu nabu ak li muy dund bul xool na nabu mi ci réseau yi xoolal nabu en tant que humain nit ku soxla soutien nit ku soxla ku ko jege nit ku soxla fameem nit ku soxla peuple am xool leen loolu xool leen bët boobu nabu tey sama xool dafa tooy sama rongoñ dal ci sama dënn parce que mënatuma maintien mënatuma jeune peuple man sa kaalaa ma dépasse léegi bu daas bu problème amee dañuy dal ci kawam ani jëkkër yi koy takk où sont les jëkkër ñi nga xam ne ñoo koy takk ana ñu ñun dañuy wax ci nabu rek duñu wax ci góor ñi tey ci góor ñi la ñuy wax man maa ñëwaat ba léegi rek ci kaawu nabu parce que 40 vidéo yi matagul ndax man nabu bi ma seetaan tey ak nabu bi ma daan seetaan tey diamétralement opposé nabu boo xam ne wax na bay jooy nabu bu wax bay dugg ci ndimbal gi mu doon dimbalee yaayam ngeen war a xam ne franchement ce fille là elle a besoin de soutien gis nga nabu bu doon tubaab la actuellement fii mu toll nii au lieu que média bi yëpp jox ko bopp naboo ngi mel ni ku jënd tiktok bi. naboo ngi mel ni ku jënd site internet yi yu ñàkk fayda yi la ñuy wër foo tourné fekk ñu poste nabu pour avoir des vues au lieu que ñu jéem a seeti mbokk nabu wala ndabu ay mbokkam jege ko waxtaan ak moom ñu defal ko dalal ko te xam ne benn jigéen bëggul di kontu jëkkër ban jigéen moo bëgg a tas ban jigéen moo bëgg a ne ci kaw suuf di takk di tas di takk di tas di takk di tas mel ni missile sol-sol amul nañ leen ko waxtaanee nabu l a besoin de soutien na ko ay mbokkam jege ngeen ñaanal ko te mu génn ci situation yi muy dund te site internet bi ngeen arrêté.